والقلم وما يسطرون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته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 Eh, mel na ne jàngoon nañ eh, lu aju ci eh, ay kii yu xaw a bari jàngoon nañ alxuruf yi araf yi nga xam ne su ci tanwin toppee bu toppee ci tanwin dañ koy sàdda araf yu ñaata la nanta ah? ñeent ban ak ban la laam miim nun ra ah li ma nar wax ah, nga dëgg de la am solo la li ma nar ah. li ma nar wax ah, nga dëgg kon kon mooy li ma nar ci wolof jamil waaw moom dañu ko bind ndax lu yees la moom dégg nga léegi itam am na araf yoo xamante ne bi bokkul ci xuruful ixfa muy xam tan asri yi bokku ci dangeen ngeen euh, te itam mën nañ ne doo ko dugal ci xuruful izhaar yi waaye gis nañ ne dañ ne bu dee am gunna day am sàdd araf yooyu yan yan la alwaaw wal yow ah, jamil waxoon nañ ne maanaam waxoon nañ ne waxabla xarfil xalqi rakkabtahuma waxabla ma siwa atbaatahuma mais gis nañ foo xamante ni bi dañuy tegaloo te wax nañ ne ah am na leneen lu fa nekk lu dul maanaam nañ tegaloo araf boobu ban la ah ah baa jamil wal baa huwa al-ba huwa ba nun saakin su dajee ak xarfun min xurufi xalqi nan lañ koy maase dañ koy maas wala duñ ko dañ koy maas dañ koy maas dañ koy maas daa dem dañ koy maas ishmaam ñaata baat lañ koy def ci alquranul karim ishmaam ishmaam ñaata baat ah juróom kooku nee na juróom ak kan kii nee na arbaa ñeent ak kan ah ñaar ah wax ji woote na de juróom ñeent ñaar ñeent voilà léegi may leen ma yéen ñu ne ne ñaar na njëkkee bu noppee ki ne ñett continuer ñeent continuer juróom continuer ana ki ne ñaar ban ban la ah sayi un eh, eh laa bàyyi leen ko yéen itam mu corrigé boppam eh xoola eh xoola bu kenn dee tontu wax ji su kenn dee dañ koy déglu ba mu pare su jubut ngeen ngeen ngeen ngeen corrigé ko dégg ngeen waaye bu kenn wax anta déglu leen mu wax ñaaram kalam jani eh, kee mooy wax ah am nañ koy tontu ba pare anta suy at ak ban ak déglu leen ah taa bon moo ko tey kii man ab suñ daara laa comme yow li ma moom moom moo moo mu bañ a leeral li muy wax parce que amu ci lu ko wóor ah suñu at gisoo ko lii benn kalima dong la wax eh am na ko ne fii ñett ñett Ah, bàyyi ma jigéen ñi anti anti fond bi laa bëgg a dégg fi mu jeexee si si a ak suy at laata mën naa am na ko waxoon ñeent na ma ci dooleel benn ma jàll ci boroom juróom bi eh, eh, eh, may ma rek ki waxoon ñeent laa bëgg moo nil ma benn bi su paree am na ah waaye defal ndànk rek ah waaw yow kon ana borom bi ci kanam la ne di xalaat voilà loolu loolu baax na loolu day na génn nga ci kon baax la kon baax la kon baax na génn naa ci moom daa leer kallam 2018. kon euh, incha allah tey ñu ngi jàng ñetti mbir ñu ngi commencé jàng waxoon nañ ne mabahisul babt yi waxoon nañ ci ne fukk la mel na ne jël nañ xaraka ah yaakaar naa jël nañ xaraka ah ba mu jeex dégg ngeen xaraka ak lu ci aj jël nañ ko léegi ba mu jeex léegi ñu ngi jàng leneen mooy asukun ak shidda ak almab wala wala almadd da ngeen ñett yu la jàng tey man yaqra albayat eh, man yaqra la la la min fadlik ida xul naa man yaqra yibanal tarfi xata dafa lak an taqra parce que dañu am ñuy bëgg seetlu dañu bëgg rafa maana wiyaatu ñuy jàng am na ñoo xam ne duñ musharaka ñoom war a yëkkati pour ñu mën a musharaka la man yaqra voilà anta yow mubtadaa'in tushaarik jayyid ah alxawlu fi sukuuni wa tashdiidi wa mawdi al maqti min al mamduudi mu ne euh, maa ngi bëgg a wax ci ñetti mbir sukkuun mooy lan loolu loolu lay wax lool maa jële leen loolu lay bëgg a wax sukkoon mooy lan dana ci wax li ñuy woyee sàdda ah mooy lan nan lañ koy defee fan lay nekk ak li ñuy woyee mat matt sax matt lañuy wax ñun matt li ñuy woyee matt ah ak ak matt ah fan lay nekk bunt bi nee na yooyu la ciy jàngale da ngeen alxawlu li ñuy ba wax bunt bi mi ngi jëm ci fi sukkooni maskanique benn wa tashdid ak sàdda ak lan wa mawdil matt ak maanaam matt fan lay tege minal mamduudi maanaam ci baat yi ñuy xëcc bunt bi ñett yi la ci jàngale incha allah taala mu commencé ci li ñuy wooyee li ñuy wooyee euh, maanaam sukkoon nee na fadaaratun alaamatu sukuni alaahu da ngeen fadaaratun alaamatu sukuni alaahu nee na sukun ab ronron lay doon ab ronron lay doon daara la digg bi nag eh, day am day am widd daara lay nekk ab ronron lay doon ñu ne fu muy nekk mu ni alaahu ci kaw araf wi ci kaw araf yi lay nekk fi xool leen mu la tabshura mulawwana voilà xamra mi ngi nii alaahu alaahu dégg ngeen fadaaratun alaamatu sukuni ñu ne ko fan lay nekk mu ne alaahu ci kaw araf bi mais nag ku nekk ay sukkoon nag am na ay forme sukkoon yu bari yoo xamante ne bii danañ ci ñëw léegi incha allah taala sukkoon euh, euh, naar ba dafa wax ne sifrun saxirun mithlu sifril abdi sifrun saxirun mithlu sifril adadi da doon xamle rek daara ba nu muy mel mu ne sifrun saxirun hmm, ab sero la bu ndaw mithlu sifril adadi kem sero bi ngi def maanaam booy booy booy wàññi da doon xam ne lan mooy kii rek lan mooy lan mooy lan mooy kii lan mooy kii kon benn kon benn euh, euh, euh, sukkoon danañoo nekk daara danañoo nekk daara saxiira benn sukkoon danañoo nekk maanaam li ñuy woye rasul xaa dañu ne kalimatu xafiif kalimatu xafiif xafiif dangeen xam ca ca woya boo ne xafiif rek da lay delloo ci xalil alfarashidi boroom ilmu arub moom moo génne lii moo tax maanaam xafiif dañ ne kalimatu xafiif ci lañ génne maanaam pour moom danañ ci ñëw léegi am na ñoo xam ne bu ñuy maas maas ka xafiif lañ jël dindi tomb bi gisoo ko nii xafiif ji nii la ñuy maase maas ka néeg naa de charte yëpp loolu moo fa nekk dégg ngeen loolu tam forme xaa forme maas ka la xal téer yi xale yi jàng bu ngeen seetloo noonu lañ commencé du nekk daara voilà comme xafsa bi voilà parce que moom loolu mooy waa maxrib dana nekk maanaam rasul xaa da ngeen rasul xaa loolu xalil moom mooy maase moom mooy moom moo génn kii boobu day nekk kii bu ndaw day day mel nii comme xaa rek xaa gu ndaw nii rek lay mel téere naar yëpp noonu lañ commencé wala mu nekk daara nga xam ne mooy cosaan ci mooy cosaan ci ci ci mooy cosaan ci maas dégg ngeen wala mu nekk wala mu nekk xë xë am na ñu koy maase xë gu ndaw dégg nga gu ndaw am na ñu koy maase loolu nag ñu ko génne muy maanaam ñi yëngu ci wàllu xam-xamu naxwu ñoom ñooy maase noonu xë bu ndaw dégg ngeen wala mu ñëw nekk benn jara li ñuy woy jaraan kii bu ndaw waa Andalus noonu la ñuy maase bu dee sukkoon boo bépp téere bu ñu bind boo dee sukkoon moom nga fay fekk dana ci ay kii léegi incha allah wala mu ñëw nekk maanaam benn jara dégg ngeen nii wala sax bokk lu ñu woy tanria maanaam bu pour pour ñu wane ne maanaam maas na maas kanik la dañ koy bañ laal waa Iran jëm Irak noonu la ñuy maase maas kanik dégg ngeen taariya taariya dégg ngeen xam ne kenn du ko eh, vidde lay nekk kenn du kenn du ko laal lu mel ne hmm, alhamdu hmm, moom moom voilà cré kay sëñ bi moom waaw cré bii moo gën bii bi ci bii ci mbuus bi bii nii moom bu sew bi bu sew bi moo gën bii moom xeer rek la day toj waaw bii moo gën waaw bu sew bi moo gën da waaw alhamdulilah mi ngi nii alhamdu hmm? alhamdu hmm? alhamdu benn ñaar ñett jara alhamdu bu dee waaw Iran jëm noonu alhamdu moo fekk araf mas kii bu ñu laal bu dalee wala ni maskani la kon juróomi xeeti maskani yi moom moo am dégg juróom xeeti masque moom moo am mooy waaja dafa wax ne sakkin bidaaratin li taybata waha baadu nohaati maha baadi ahliha waxal xaliili jaratun li andalus taariyatun ahlul iraqi tultamas muy ku ne daa am ñu xamee nooy nooy nooy loo loo moom mais li asalu ci masque ci masque nig moom loolu mooy sukkoon mbooleem mbooleem fii boo ci génnee maanaam maanaam waa andalus ñi ñëpp maanaam daara la ñuy maase même boobu charq itam daanaka dem nañ ba maanaam masque rond bi daal mi ngi bëgg a nangu maanaam masque ni hmm? mi ngi bëgg a nangu masque ni kon nag jaadu na même senegal ma war bu ñu neexoon sax ñu kere suñu masque nii nag ñu kere suñu masque nii ne juboo ci ne lii mooy suñu masque nii mais woo xoola waa Iran waa Irak ñi ah ne masque ni ci ñu mooy bu ko kenn dañ caa juboo dañ caa juboo nit ñi faw dañoo war di liggéey di xool nu ñuy avancer ci benn mbir waaye ñun moom li ñuy wooyee consommer local moom naal dañuy defar indi ñu rek waaw ah waaw mi ngi noonu voilà loolu lépp dañoo fa imposé seen bopp ba kenn ku nekk jéem koo xam yaa ngi booy jàng seen teel da nga ko jéem a xam effectivement loolu moo baax fardu sa bopp ci ci saaxa bi waaye kii rek lañ defar indi la rek ah? nga jël. boo ko déggee fii yi jóge Europe la ñuy jënd. ah xoolal loolu loolu boobu ñàkk fay daal. dégg ngeen kon. Ah. ah. yow dafa jàll sëñ bi. ay dàll yoo xam ne ni mu seere yoo xam Europe lañ ko jënd yoo xam ne mm-hmm. cuir cent pour cent mm-hmm. yoo xam ne ni mu rafetee am mm-hmm. nee na bi ñu ko tegee ato laa dégg mu koy nettali waaw nee na la gërëm yaa dëgg yaa dëgg wax na dëgg wax na dëgg sëñ bi loolu loolu dafa jaadu ñii ñëpp dañoo fardu seen bopp dong léegi juboon nañ ci bañ xamee leen ko léegi nag ñoom léegi moom bu ñu jëlee téere bi ko andalus yaay xool nooy def ba jàng ko mais ñu def dañ fexe fexe ba def loo xam ne ku ko bëgg da ko jéem jàng waaye dañu toog ñu ñu indi rek ñuy jàng waaye ñun daal bokkuñ ci dara kon day mel ne même ni àddina ji mel diine ji itam soriwu ko dañuy conseil dañuy defar dañuy jox mais ñun defaruñ dara loolu nag xam ne yéen ñi yi nga xam ne yéen gone yi da ngeen da ngeen ci génne waaw ah, gën koo fonk voilà effectivement ah kay ah couleur yi moom moom da ngeen ko jàng couleur yi moom moom dañ koy jàng nii ah waaw couleur yi moom. mooy waaw yooyu moom yooyu suñu aada la moom mais bindin bi moom mooy li ngeen di jàng loolu moom dañ ko fay fekk ah. waaye nag kii dañ koy def ak maxtu yu rëy yooyu kii yaag yooyu moom suñ kii la dañ ko jeexal nag tàkk fi mu ne nii aywa ah. Ah, bay di ma doon wax léegi voilà sakkin dégg bidaaratin li taybata waxa ah waaw kii dafa pour ma bind quoi waxa baadu nuxaati maha baadi ahliha أهلها waxal xaliili waxal xaliili jaratun li andalus taariyatun taariyatun ahlul iraaqi tultamas sakkin bidaarati bidaaratin li taybatin waha baadu nuhaati baadu nuhaati maha baadi ahliha waxal xaliili jarathun li andalus taariyatun ahlul iraaqi tultamas بسرعة ها طيب انا لسه وحى ها وها ها ها لا حول سيخير سير مولي وها تلتمس تلتمس تلتمس maa baadi ahliha tultamas mabni lil majhul mabni lil majhul xoolal gis nga kuy jàng da ngay tàmm tàmm mbind mu bar yi warul jël temps lii dañ koy wax rek ngeen gaaw bind ko karmat ko continuer da ngeen bu mu leen jëlal ko mu gaaw ah baax bi ahliha waaye gis nga bu bëggee def la la ah fan ci waxal xalili jaratun andalus li andalus andalus li andalus andalus ah al iraq tultamas tultamas waaw min al iltimas sàkku am sax incha allah. aywa ah ah ah min fadlikum ab ngeen xool effacé naa ko ba pare non comme commencé naa far leen li pare du am sens dégg ngeen léegi dañu wax ne aywa lanaa alxawlu fi sukuni wa tashdidi wa mawdil matti min al mamdudi mu ne nag fadaaratun alaamatu sukuni alaahu alaahu ci kaw lay nekk jàppaleen baat boobu bu baax dañ ci ñëw kon pare na pare na maanaam ci sukun ah jàng ngeen ñaata sukun moo am ak fan lay nekk waaye nag xool leen tuuti wa tashdiidu xarfu chiini wa tashdiidu nee na xarfu shiin yi nee na sadda nag moom shiin ci lañ ko jëlee baat bi ñuy woowee shadid shadid shadid shadid shadid ci lañ jële shadid ci lañ jële ci lañ jëlee sadda da ngeen dañ ne alaamatu shinun xëyru man xuuta chinun xëyru man xuuta siin goo xam ne kenn du ko tomb da ngeen ta wa takun alal xarf te ci kaw lay nekk kon fi ci kaw moom day mel ne moom fee même même kii sensé wul kon sadda ci kaw lay nekk mais xëy na danañ gis leneen mais jàpp leen loolu nee na euh, sadda ci baatu shadid lañ ko jële ba pare dindi tomb yi gis leen ko nii gis leen ko nii xam nga gisoon ni la ñuy sadda gisoon ko nii xanaa yoo ko nii ñoo ko ni nee na noonu la ci ci ci shadid lañ ko jëlee boo xoolee xaa maska ni bale ñu ngi ko jëlee ci xafiif mais sàdd ñu ngi ko jëlee ci baatu shadid di ñu tomb yi dégg waaye neen ci kaw lay nekk mais nañ xool tuuti hmm? nañ xool tuuti léegi nag lan la ci teg naan jàngal uh-huh. ah na léegi dañ doon jàng sàdda bi xam nga nee na la ci kaw lay nekk wa tashdiidu xarfu siini même alaaw ñoom ñoo ko bokkale nee nag wayki wala shaklu kama xulnaahu amaamahu aw aw taxtu aw alaahu wayki wala shaklu kama xulnaahu amaamahu aw taxtahu bu dee kasra ah aw aw aw aw alaahu wala ci kaw bu dee maska bu dee maska lonk da ngeen xool leen fii euh. alma maa fi mushkil daal moom ko mën a xam rabbul izza rabbul izza rabbul waa nee na waa yujaalu shaklu kama xulnaahu comme nañ la ko jàngale woon amaamahu xam amoon na xilaaf te koy fàttali ko ba ñuy wax maska lonk ci kaw wala ci amaamahu amaamahu aw taxtu parce que dafay mam nu àll àll domm parce que dafay idaaf bi yéen ñu jàng nax wa ah. aw taxtu bu dee kasra aw alaahu bu dee eh, maanaam bu dee bu dee fatxa bu dee fatxa kon même Chine soo amee forme bi amul benn problème mais nag ah, ah, li mu wax amaamahu aw taxtu aw alaahu am na fenn fu muy gën a leere ci bu dee maanaam sàdda bu mel nii boo sàdda boo xam ne boo xam ne nii maanaam maanaam Chine buñ buñ dindi tomb yi la am na beneen beneen sàdd bu amul boo xam ne du mel nii foofu la lii muy wax di gën a feeñe bu baax da ngeen dana ko wax ci kanam tuuti mais moom lii moom mooy mooy li ñu jàng fépp gis nañ ko nii hmm? da dan sàdda day nekk masque bi day nekk fan ah alaahu ah rabba wala aw taxtu rabbi walla lu mu te lu ci teg voilà alaahu boobu ñaar moo ci nekk fatxa amaamahu masque lonk moo taxoon ñu doon ko wax ca la xilaaf bi amoon masque lonk ci kaw lay nekk wala ci kanamam lay nekk yéen koy fàttaliku bu baax voilà moo tax muy wax voilà kon kon def ko fii waaye loolu bala boo gën a feeñ muy muy forme forme forme euh, euh, forme maanaam sàdd bii muy bëgg a wax ci la lii muy wax gën a leere bu baax mais lii moom mooy mooy mooy li ñu xam ñun ñëpp mooy nit ñi maasa itam kon waycalu shaklu kama xulnaahu amaamahu aw aw taxtu aw alaahu amaamahu bi maas ko lonk la jub la wax hmm? aw taatu maak suuf la jubloo wax aw alaw maskeer la jubloo wax waaye nag lu mu ci teg lu ci teg ah wa baadu ahli ahli dabti daalal a aha ah voilà na ñëw ci euh, forme bi ba pare nee na xaw waxoon nañ leen ne euh, maanaam euh, sadda waxoon nañ leen ni sadda maanaam ñu ko jële ci ci ci Chine guñ din tombali waaye nee na ah, am na beneen sàdd baam bu melut noonu de wa baadu ahli dabti daalal jaala am na ñoo xamante ne bii nag ñoom daal lañu jàppe maanaam sàdd nee na am na ñoo xam bu ñuy sàdd ak daal lay nekk ak daal lay nekk mais dana wax nu muy mel ci kanam kon kon boo xoolee sidd man nga ne am nga ci ñaari forme am nga ci forme bi ah mais nee am nga ci daal daal bi xoola dana ko wax ci kanam tuuti dégg nga daal gi mii lay mel boo xoolee bari nag ñii bu ñu sàdd nii la def lii moom ku xam kii mbind kii sax danga koy xam sàdd yi nii rek ngay def dem wala ñu sàdda effectivement sadda bi bu ñuy bind bind roqaa maanaam moo ëpp lu ñuy jëfandikoo sax ci sàdda bii nga xamante ni moo di saaroo fii ci fii ci fii ci sow mais dana am na ay wax nag yu bari yu ci ñëw danañ ko wax léegi kon wa baadu ahli dabti daalal jaala am na ñoo xamante ni maanaam ñoom sàdda nee nañ da ak lañ ko def daalal jaala mais fan lay nekk yakoonu in kaana aywa bi kasrin asfala ay na ay na xoola xoola rabbul izzati wala rabbil izzati amma yasifuna rabbi nee na euh, xam nga am na ñoo xam ne daal lañ koy def ñu ne fu muy nekk yakunu in kaana bi kasri asfala al xarf asfalahu adamir yow ilal xarf nee na day ne ci bu fekkee li di maat ka suuf la voilà kii nii nga koy nii foo ko fekkee xamal ne xamal ne xamal ne marque Sofala dana ci ñëw ndax danañ ko maal duñ ko loolu dana ci wax dégg mais ñi nga xamante ni bii daal maam ñoom ñoo jël euh, ñoo jël daal def ko forme maanaam sàdda nee na bu dee marque suuf bu dee marque suuf ci ron gi lay nekk nii lay mel dégg ngeen lan moo ci topp aha aha ah, wa fawqahu fathan continue wa fi min amaamihi ah, nee na nee na wa faqo fatxan su fekkente ne bii nag maanaam ñi nga xamante ne bii daal lañuy def maanaam mu nekk seen maska bu dee bu dee kasra ci suuf lay nekk waaye nag wa xaw fatxan bu dee maskeer ci kaw la daal gi nekk ah, eh, raaytu masalan rabbahu masalan hmm? raa rabbahu kooku xam alayhi salaam lay war a doon message boobu daa rëy da ngeen ñi lay mel xaw nga walla nga ne raaytu raaytu rabbal bayti ñi nga koy ma ñi nga koy def dangeen ngeen rabba boo ñëwee rek bu la ko kenn jàngal gis naa boroom kër gi boo ñëwee fii rek na la na la wóor ne lii na la wóor ne maskayat la parce que lan parce que ci kaw la nekk waaye nag wa fi ndimaamihi yakunu wa fi min amaamihi waaye bu fekkee bi maskalonku la ci kanamam lay nekk dégg nga hada rabbuhu hmm? hada rabb masalan rabbuhu voilà rabbu nee na wa wa fi ndimaamihi ah yakunu lamtira min amaamihi dégg nga xoola tey boo doon maas lii lii nii xoola nii nga koy def mais nag bu fekkoon ne dafa sàdda nekk maas ko kese rabbu nii nga koy def dégg ngeen ko bu baax bu sàdda ci kanamam lay nekk non dama moom ñu ngi wax bu dee maas la ci kanamam lay nekk bu dee maas kayat mu nekk ci kaw bu dee maas kalo bu dee maas suuf mu nekk ci suuf raay tam xaada ñan ñooy maase nii loolu mooy waa waa charq ñi nga xamante ni bii ñoo jëloon waa charq ñi jëloon xaa ah ñoo ñan la xalil ah ak ñi far moom ñi ñi defoon maanaam sadda ah ah sukkoon voilà ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy sukkoone noonu waaye nag waaye nag waaye nag fii moom li fi gën a siiw mooy ci xar bu bépp hmm, sukkoon maanaam euh, sa sàdd laay wax sàdd Chine bi ngeen xam boo xoolee même même même même même fi ñu toll nii charq téere yi fi moo lay yu bari Chine la ñu def yaakaar naa moo gën a bari fi ñu toll nii moom xam-xam bi mi ngi fi waaye li ñuy jëfe fi ñu toll nii nii nii nii ñuy sàddaa lépp ci àddina bi noonu la ñuy sàddaa même téere yi moo le madina sax noonu la koy sàddaa bu ngeen ko sàddawaa boo dee masjid masaf madina bi noonu la ñu ko sàdda mais seen téere yi ci moom sàdda bi bari na ci trop da ngeen kon daal bu ñi nga xamante ne bii sàdda dañ ne daal maqluba lay nekk dana ko wax léegi nu muy mel nee nañ bu dee maska suuf ci suuf ci suuf araf bi lay nekk bu dee maskeer bu nekk ci kawam bu dee maska lonk mu nekk ci kanamu araf bi da ngeen lay mel voilà danañ ci ñëw dana ñëw ci loolu Mbàkke aha Jamil dana ci ñëw Jamil Jamil jàngal ma woyu ci topp ma dégg <laughs> ah waaw xoo imaani mu ne foofu da doon wax nu muy mel wa tarafahu wa tarafahu fawqu qaa'imaani mu ne bu dee maskayat ñaari cat daal gi kaw lañuy jëm gisoo ko nii bu dee maskayat nee na ah, ah, ah, baat bu dee maskayat cat yi kaw lañuy jëm ah voilà comme rabal bayti nii ka ñaari cat yi kaw lañuy jëm nii dégg dañuy jublu nii nii la ñuy def wa fa xooy maa ne waaye nag wa fi siwel amala mu nekk sànni bu fekkente ne bii ne jëmul ci kaw suuf la ñuy jëm ko loolu mooy lan comme comme wax na masque et masque masque ko ci des ah ak kasra comme alxaqu alxaqu soo koy maas ah? kii bi boo koy saa kii nga def alxaqu nii lay mel alxaqu ci kanamam lay nekk ci kanamu araf yi lay nekk parce que da xam ne maskalonk maskalonk la mais ndax dañ commence li li ngay laaj wala duñ commence loolu dana ci ñëw yaakaar naa min gayri li la ci teg ah effectivement ah min gayri shakli lima tanazzala manzilaha effectivement voilà hada yakfi voilà hmm? bu dee ñaari masque non yow loolu ñëwaguñ ci lii sàdda lañ lay jàngal sàdda lañ lay jàngal xoola dañ ne la wa tarafaahu ñaari cat yi muy lii mais me nu nu koy xamee parce que amul lu yaako yoo wax mais tabla bi doo ko xam masque bi moo la ko mën a xamal nga xam nga li jubloo waaw munu masque bi moo yow su ma bindee lu lay xamal ne lii xàqu la mooy lii mais su ma ko maasee na nga baax na nga baaxoo xam dootu lii di te loolu li ngay wax ndax xam na li ma koy wax ah, xoola xoola xoola man mënumaa bind xàqi xàqaa parce que su ma ko bindee for bu masque yi nga xam laa koy def mais nii laa ko mën a def léegi xoola xoola xoola su ma bindee masalan lii jàppal ne xàq la loolu la la wax dégg nga ca ca ca ginnaaw la la ko waxoon fu muy nekk dafa waxoon ne yakunu ah, in kaana bi kasrin asfala wa fawqahu fatxan du loolu la wax wa fawqahu ci kaw la nekk fatxan bu fekkee ne baat bi masque la sàdd ba ci kaw la nekk xoola kon boo fekk lii yow miy laaj min fadlika eh, kun maay boo fekk lii rek na la wóor ni kii moom xa la parce que nee na la moom sàdd forme sàdd bii saa yu nekki masque ci kawam lay nekk mu tegaat ci masque ci kaw lay nekk wa wa wa fawqahu fatxan waaye nag wa fi dimaamihi yakunu limtira min amaamihi xoola kon boo ñëwee fekk lii bu la ko kenn wax xamal ne xàqu la parce que ci kanamu araf la nekk waaye nag waaye nag waxoon na la waxoon na la nu muy mel dalaa waxoon na la in kaana bi kasrin asfala mais nag nan lay mel nii lay mel ah, lay mel waaw office siol en la lépp ci la bokk maska lonk ci la nekk maska suuf ci la nekk dégg ngeen qaa ah, imaani moo nekk nii xaqa wa wisiol en la su fekkente ne maanaam jëmul kaw mu nekk saa dañ leen di jëm dañ leen di jàpp jëmale leen suuf loolu nag comme gén ne maanaam masque et masque moo fi def mi ngi nii al masque suuf mi ngi nii alxaqi alxaqu alxaqa waa di haada bala ñoo continuer mhm. baax na waaye ah. ah. maskalonk moo nekk nii. ni nga mel may leen ma tudd xoola xool leen fii rek fatxa dégg ngeen dënn kasra dégg ngeen ko nii gis ngeen ko nii ah lan nekk ci kaw lii ah mais ñoom noonu lañu ko jàngale ñoom ñi génne xam-xam bi déggoo leen la wax ah waaye ndaw ah, lu tax mi ne ci kaw ah. ah ah damay def loolu masque ñëwaguñ ci sàdd lañ lay jàngal indadir xalilan indadir xalilan dégg ngeen waaye nee na nag min xayri shakletin nee na nag ñi ñi ñi nga xam ne nii la ñuy sàddaa min xayri shakletin kenn du commence boo ñëwee rek da ngay xam ne kii xàq la foo ko fekk nii rek loolu nag am nay wax mais bi ci njëkk mooy kenn du commence dégg ngeen min xayri shakletin kenn du commence lu ko waral lima tanazala manzilaha dañu dafay taxaw taxawaayu maska dégg ngeen moo tax kon boo ñëwee rek xam ne ni xàq la soo ñëwee ni xamal ne xaq la boo ñëwee xamal ne xaqi la mais nag am na am na lu am na lu mu waxaat ci kanam wal baadu minhum ashkala ashkala lu ci teg kaawalin kaawalin waaw moom foofu loolu kaawalin waaye nag ah am nañu de dañ koy mas de dañ koy mas comme dañ doon masé mas ki la jàngaloon doo xam nañ leen ca kanam ak ca digg ba ak ca nangam ah xaqa xàqu nga def nii xàqi nga def nii dégg ngeen wal baadu minhum moo tax ma ne la xaaral li ngay wax dama ci wax wal baadu min ashkala ka awalin dégg ngeen waaye nag wal baadu fi taraf am na ñu ñun de d'accord nañ ci ñàkk maas bi waaye daal bu fekkente ni bii maanaam baat bi maanaam masque yi dafa ne ci mujj gi ñun boobu moom duñ ko maas duñ ko maas day delluwaat min gayri chaklatin waaye kon ma mafhoomu maanaam muxaalifu duñ ko maas mafhoomu muxaalifu maanaam ci cat li mooy bu nekk ci ca tàmbali ba dañ koy maas day dégg li nga bu baax voilà xaw la kenn du la ko wax mais mafhoomu muxaalif bi ci koy déggee buñ laa wal baantu fi taraf ñenn ci ñoom danañ maas fi taraf bu fekkente ne bi maanaam maanaam dafa ne ci mujj baat bi da ngeen duñ ko maas da ngeen bu baax waaye kon bu fekkee ne dafa ne ci tàmbali bi ak ci kii bi ma ma may fase pour ñu continuer. ñi nga xam ne moom dañ ne ñoom duñ commencé. ah bu doon tanwin xam su boobaa yow lii ci nga koy xam. lii lii ci nga koy xam waaw. du am alif ak laam. doo ma laam. te day ñëw ni ñu koy bindee doo koy da koy xam. bàyyi ma ko tuuti pour li muy wax. ah waaw loolu daanaka euh, kiiwu ci bu baax taxawu ci bu baax waaye loolu tam mën nga koo dégg ci la ñuy wax in kaana bi kasrin asfala ah waaye ñoom loolu dañ koo jagalee li ñi nga xamante ne bii dañoo def maanaam sàdda def ko formu daal mais gis nga li muy wax am na ñoo xam ne dañu jël sàdd gi teg masque gi ci suuf ci suufu sàdd gi ah. waaw noonu ci suuf saa rek la nekk effectivement duñ ko tudd da nga koy gis. Mhm. dégg ngeen léegi nag liñ leen wax <coughs> bu dee sadda dafa nekk daal imaamu daani loolu mooy ixtiyaaram dégg ngeen imaamu daani loolu la loolu moom noonu lay maas ak waa àndalus ñëpp dégg ngeen maanaam bu dee bu dee forme daal bu dee kasra na nekk ci suuf. bu dee masquette na nekk ci kaw ah ah bu dee masque lonk na nekk ci na nekk ci kanam imaamu doy bi loolu mu ixtiyaar da ngeen mais ñun moom amuñ ci amuñ ci wax parce que loolu du suñu du suñu nuñ koy waxeeti du suñu du suñu loolu du suñu mbir hmm. voilà kon waaye nag min chaque shakletin kenn du ko maas loolu di jenn wax da ngeen min gayri shakletin bi dooni bi dooni min gayri chaklatin kenn du ko maas al ma laaj leen ku may jàngal li eh bu kenn wax ku bëgg a wax yëkkati sa loxo ba pare anti xàq jayit lu tax nga ne ah, nga ne xàqa lan mooy sa taw ji ci teere bi wa wa fawqahu fathan wa fawqahu fathan intaha shukran lak waaye nag min xëy na chaque lettre kenn du commence loolu mooy wax ju njëkk ji ñaari wax ji maanaam mooy fañ ko teg mooy dañ ne limaa tanazzala man silaha day taxaw taxawaayu maas wala baax min ashkala am ñu noonu dañ koy maas ka awalin comme nañuy maase ay moroomam da ngeen kon da ñëwaat fii ku may jàngal li man yàq la ant d'accord ngeen fan nga ko teg alxaq ji ci téere bi aywa ah d'accord ngeen déglu leen li mu wax wa fi sil ala mu nekk nee na d'accord ngeen mais man mi d'accorduma anta eh, waaw waaw effectivement yekoonu in kaana bi kasi asfala parce que lii moo la xamal ne masque suuf la ah, sàdda bii masque boole ci mais mais ma bi baax na mais sa delluwaay moo des yakunu in bi kasrin asfal al harf jamil am nañu ne léegi nag euh, wa baaduhum fi taraf ñoom dañoo am ñaari xaaj ñaari xaaj dañ ne su fekkente ni bi baat bi maanaam sàdd bi dafa nekk ci mujjug baat bi hmm, dañ koy sàdd maas ko hmm, ma xool ku may jàngal lii anta alxaqu parce que bu nekk ci mujju baay bi mujj baay bi dañ koy bañ dañ koy dañ koy dañ koy sàdda dañ koy sàdda maanaam sàdda bi dañ koy masla bu nekk ci mujj baat bi kon ma fu ma xal mooy bu fa nekkut bu fa nekkut loolu lu mu doon kon ku may tontu bu fa nekkut waaw bu nekk tàmbali wala wala mu nekk digg bi looy looy wax ji kenn du commence loolu loolu mooy wa baaduhum fi taraf da ngeen wa baaduhum lenn ci ñoom da koy maas fi taraf bu nekkee ci mujj baat bi kon ma fu mu xaalif mooy bu ca nekkut dañ koy sadd rek bàyyi noonu waaw ah li fatxa la waaw ah non non man maa maas maa maas alxaqa nii rek mais kay boo boo doon maas maa ko ah maa ko maas man koy boo ko bëggee maas fii nga koy maas waaw xam nga lii alxaqi la lii alxaqu la lii alxaq la dama doon andi maanaam ñi ne dañ koy maas soo nekkee ci mujj baat bi waaye nag dañ ne duñ ko maas su ci nekkut lu mel ne masalan xoola non tarafaaw loolu ni ñu koy bindee la doon jàngale dégg leen mhm. moom lii lay bi day jàpp ah. ah, non non moom li muy wax. c'est pas compris. nekk ci kanam. waaw ok ba xam naa li mu wax waaw. waaw ah, pour masque bi. jawit waaw seetu moom li ngay wax wax nga seetu moom li ngay wax léegi xool leen fii. ci nuñ koy jànge ah ah. ah. maa mawjud voilà jàngu ko jàngu ko jàngu ko jàngu ko léegi déglu leen ku may jàngal lii ah ay waay day jël par kenn kële borom muraay gu ñuul gële waaw ah, yow moomu rabbahu lii nuñ koy jànge rabbihi ndax danañ ko maas ah gisee gisee ma ko dóor bu rek lañ koy maas kenn du ko maas wax jaa ngi nii gisoo ko nii li mooy moom moo nekk nii gisoo ko nii bi dooni chocolatin xoola bi dooni chocolatin mooy wax ju njëkk ji. Ibnu Daawud la nga ah. ñoom du waxu ci dara waaw moom xëy na moom parce que ñun ñoom ci daara la nekk <laughs> ci maskanik xalil moom ñoo ànd ci maanaam euh, ixtiyaaru daani mooy mooy mooy mooy mooy mooy forme daal bi loolu moo tax dégg kon kon benn bi doon chaque latine mi ngi nii dégg am na ñu ne dañ koy maas wal baad min ashkala ka awalin waaye nag wa baaduhum dañ koy maas fi taraf fi taraf ñaari wax da cee nekk fi taraf ma fu ma xaalif mooy bu bu bu ci mujj gi kenn du ko laal ba nga laa ci cat li mun bu ci nekkul rek day delluwaat ci bi bi doon chaclatin waa di hada xal mi soal fi hada xabla nawasil lu ngeen ciy laaj bala ñoo continuer buntu bi xaw na kii tuuti dégg ngeen ngeen bàyyi ko xel bu baax xaw na kii tuuti dégg kon mel na ne li ñu wooyee wax nañ wax nañ sukun ah wax nañ sàdda pare nañ ci am na lu ñu am na lu ñu def te woon fii mooy almat almat jayit ah mhm. leen ah waaw rabbuhu voilà bii nii rabb xule waaw loo ma njëkkoon a moom lay nekk ci wax ju njëkk ji bi dooni chaklatin rabb xoo lay nekk jayit rabb xoo lay nekk wax na dëgg hmm. Hmm? loolu wax loolu ak seeguñ ci ak seeguñ ci aha aha waaw ba ci kanam baat bi lay nekk dafa sax daal baat bi waaw yaay seet foo xam nga loolu moom yaay seet masalan lii xam nga xoola loolu moo tax ñu lay wax ñoom dañ ne kenn du ko maas ci forme bii jafe-jafe boobu ngay moo ci feeñ gisoo dañ ne la kenn du ko maas fan lañ koy maase bu nekkee can li képp gisoo mooy li ngay wax moom mooy mooy li ngay wax parce que xam nañ ne même bu nekk ci digg bi doo moom nu muy mel mooy li ngay wax moo ba baax fi taraf bu nekk ci mujj gi rek lañ koy maas mais bu ci nekkul moom day dellu ci wax ñu bi doon chocolatin da ngeen waaw luy loolu ah mais fa mu nekk noo koy fa nekk lii lii lii noo koy jànge alxaq moom la nekk waaw dégg ko ba pare it kee mooy laaj xatay tay rabbu moo ñoo yem ba léegi ma yow yow rabbu ji am na lu ci topp wala dara topp ci rabb rek ngay wax bu dee rabbu day mel ni kon am na damir su boobaa kenn du euh, ko maas eh, kenn du ko maas noonu lañ koy bàyyi voilà kenn du ko maas lañ lay wax nag rabb rabb rabbahu dañ ne la wa baadum fi taraf dañ koy maas bu fekkente ni bii maanaam moo mujj ci baat bi ma foofu mu xaalif bi mooy bu ci mujj kenn du ko maas mooy day dellu ci wax ju njëkk ja daa mel ni moom li mu bëgg laaj mooy bu a la war a nekk mais lii mooy sàdda gi. Ah. waaw bu nekkee bu xoola bu nekkee rabbu dañ ko dul maas. sàdda rek lay am. sàdda gi mu ngi nii rabbu. xamoo xamoo lii rabbahu la lii di rabbihi rabbahu rabbihi waaw moom loolu la bëgg laaj nag kon loolu foo ko fekk. maanaam bëgg wax bi nga njëkkoon a bind. waaw maanaam boobaa nii lay def maanaam. comme xam bii mooy rabba. waaye comme bii nii lay doon. Ah, bu fekkee bu fekkee ne dafa nekk maskalonk. waaw lay mel waaw loolu la bëggoon laaj. loolu la bu dee lii lay mel waaw. waaw ah, xaw ma ko. Ah, bu dee maskalonk xoola du sensé wa fi dinamihi yakun limtira min amamihi loolu lañ la wax. Hmm? waaye nag fan lay nekk ci kanam. ci kanam lay nekk kanam lay nekk mhm. kanam lay nekk loolu ngay wax ok voilà kon loolu lañ doon wax ci ci sàdda bu dee bu dee bu dee Chine wax ji amul problème hmm? fan la wax ci am problème bu fekkee ne dafa nekk forme daal loolu mooy ixtiyaaru al imaamu daani dégg ngeen abu amar daani loolu mooy ixtiyaaram dégg ngeen hmm. ak waa Madina <coughs> ñoom noonu la sàdda <coughs> seen téere yi boo ci xool noonu lañ koy sàdda daal forme daal. Mhm. ñeenti ak ñeenti ñetti anam yi la am. ñetti bu nekkee forme daal ñetti anam la am ña boo ko sàddaa wax njëkk ci kenn ko maas boo ko sàddaa dañ koy maas su fekkee fekkente ni bii maanaam euh, ñu am nañu dañ koy maas fu mën a nekk dégg nga ñetteel bi ñu ne ah ñun de danañ commencé su su fekkee ni moom mujj ci baat bi su ci mujj nag dañ koy sàdd bàyyi ko noonu kenn du ko mas loolu moo moo ci ñëw bu dee formu daal da mais ngeen xam ne nag maanaam waa waa ñun ñi boo ci gën a àndalus waa waa sow yëpp seen sàdd mooy sàdd ba ngeen xam ci seen téere da ngeen mooy Chine da hmm. am sax day faas ñu continue léegi ñu ñëw ci àll àll al mapp ñëw ci al mapp أيوة من يقرأ تالي وبعض وبعض في الطرف ah waaw foofu lañ toll waaw loolu laa bëgg waaw naa am ko jàng way woo waaye di yaqra o faw xa waawin suma yaa wa alif ah mappun aywa بعد تأخر أها ولا هذا يكفي nee na nag wa fawqa waawin summa yaa summa yaa in mënoon na ko wax de waaw dafa mas alifi kon baax na wa fawqa waawin summa yaa wa alifi loolu moo waawin summa yaa wa alifi voilà mu ne ah kon boo xoolee wax na fu muy nekk o fawqa yaa in suma yaa waalif mattun li ngay waaye al ak matt lañ koy wax al ak mook al maddu ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk lu ñu firi da ngeen xëcc la baat bi di firi da ngeen léegi ñu ngi ñu ñëw ci li ñu woyee ak matt mooy mooy maanaam ni muy ni muy mel nag jàngalewu ko waxu ko ci téere bi mais ñun xam nañ ko ah kii lay nekk leen rek mel ni sanru kii mais lim njëkk ci directement mooy lu koy waral ak fan la nekk ci la ñëw wa faw xawaawin su ma yaawaali mattum nee na ah yéen nu ngeen defe matt nii baax na nii baax na kon baax na léegi xoola xoola nee na wa ba'da waawin al waaw su mu ci teg summa yaa wa alif mattun al waaw ku may indil baat bu am waaw bu xëcc mais sart bi négal ma parce que comme da nga xaw a kii sart bi mooy euh, lam ci teg bàyyil ma indi baat bi benn yoon waaw la njëkke ay na mim saa

يسوء يسوء طبشورة طبشورة طبشورة هذا ما رأيته شاهد القهوة مرتين اليوم ولا كي نونو يا يا ما دفن لين من ممكنك mbindum daara moo xam ne moom da naan lii sax xam naa ne ji ak wajaa rabbuka Euh, téléphone bi ci classe bi téléphone bi ki ko yor ci classe bi na ko arrêté bañ jàng ba pare téléphone bi ci classe bi na ko arrêté téléphone bi ci classe bi téléphone bi ci classe bi mënuñoo ànd voilà nee na faw xawaawin ca kaw yaaga ca kaw waaw ga su ma yaayit ak ci kaw yaaga waalif mattu matt ga ca lay nekk mais lan moo koy waral lan moo waral ñuy matt nee na nag mooy li xam sin baadaha taaxara am sa gu ko féete ginnaaw li am sin la ko mooy am sa guy ñëw am sa goo xamante taaxara mujj na muy muy ñëw na ci ginnaawam li am sin am sa goo xamante ne bi taaxara mujj na baadaha ci ginnaaw buy araf yi ñëwee loolu mooy waral matt di ñëw foo ko fekk hamza moo ci sës wala lan aw saakinin aw saakinin mel na nga ne ma min daabatin aw saakin udxima ah wala ah, wala saakin boo xam ne maanaam dañ ko idxam daaba ba la woon ah daaba bu ñu ne daaba ah aw saakinin udxima aw in udhira wala sax saakin boo xam maanaam moom idxaamuñ ko dafa feeñ lu mel ne mahye mahye nuñ koy bindee miim xaa yaa alif nii loo ci topp ah yërut mooy lan li jëm nii yërut mooy lan yaa gu sew dañ koy xonqal kay gii gi ngeen di wax walla lii la jubloo wax nee nee na matt mi ngi am ginnaaw am sa gu ñëw am sa gu wala saakin joo dañ koy idgaam alxaq adda atuxaaj juuni déggu leen masque bi atuxaaj juuni aw ni uzira wala sax maanaam mu nekk luñ feeñal lu mel ne maxyee nga xamante ne bii su koon baa ngi nii da ngeen nag fan lay nekk nee wa fawxa ca kaw lay nekk wa fawxa yaa in ca kaw lay nekk na jël bu xaw a ki na bi da ngeen ca kaw lay nekk ca kaw lay nekk ne da ngeen wa fawxa wa waawee nañu noonu wa yaa in hmm? da ngeen ah, ah dabba dangeen kon li nga xam ne mooy sabab matt mooy ñetti mbir faaw day am waaw moo ci maanaam waaw goo xam ne am sa moo ciy topp wala yaa am sa topp wala alif bu am sa topp walla sax du am sa waaye dafa nekk saakin saakin boobu mën a nekk maanaam saakin bu ñu idgham wala mu nekk maanaam saakin boobu noonu dañ ko idhaar loola saa yu amee saa yu amee na nga andi matt da saa yu amee na nga andi matt Euh, loolu nag matt bi nu muy mel am na ñaari wax ndax nii lay mel li mu ixtiyaar maanaam euh, Abu daawut Abu Daawud waaye am na ñu ne am na ñu ne xool leen fii wajaa cat li daa gudd am na ñu ne xoola day commencé ci waaw gi walla ci yaa gi wala ci walla ci alif bi ba àgg ca am zaba wala mu àgg ci sukun ba kon bu bu dee wax jooju fii ngay tàmbalee yéen a ngi seen mhm. waaye li njëkk jàng nag imaam daal li mu wax mooy ci kaw ci kaw lii lay nekk yéen lan ngeen di jëfee fii ci kaw kii xanaa yaakaar lii moo gën a siiw fii de dégg ngeen mais am nañu ne nag day commencé ci araf bi dem ba ca ba ca hamza ba wala mu dem ba ca sukkoon bu doon fii itam day commencé fii day commencé fii lay tàmbalee bu nii da kon ñaari bindin moom la am waaye ixtiyaar bi maanaam mooy mu ne ci kaw mu ne ci kaw maanaam xëcc ka gi da moo xam waaw la wala yaa la wala alif la ah wala ah. Ah? Ah? waaw loolu laa damay na leen nuñ ko nu muy mel waxu ci waaye ñun yaakaar naa nii lañ koy bindee kenn ci ñëwul ci téere bi da ngeen ah ak mim ku ndaw mhm. mhm. comme daal xam naa rek xam def nii xanaa def nii naa koy gis kay mhm. da mais suura bi moom waxu ci da ngeen waaye daal moom li mu jàngale mooy kañ lay kañ lañ koy def ak maanaam fan lay nekk da kañ lañ koy def mooy mooy mooy xëccëg gi bu ci am sa toppee wala saakin fan lay nekk ci kaw xëccëg gi lay nekk wala day xa day commencé ci maanaam ci maanaam ci ci ci xëccëg ba ca hamza ba wala ba ci saakin ba da ngeen mooy wax ji ah voilà. Hmm? ah ah ah manewu loolu wute na tuuti loolu lañuy ñu waaye loolu la ñu waaye maanaam maddal badal ah ah li muy wax nañu arrêté waaw parce que it's simple xoola xoola dégg xoola kii du ci ñëw dangeen nii la nekkoon après ñu ñu kii ko ñu def ko bi ñu def ko nii soppi ko amano ah, da ngeen amano ah, ndax da ngay def nii wala da ngay def nii boo foo fokkee loolu loolu lay remplacé mooy li ngay wax te danañ ci wax incha ngay wax. Mhm. ah. waasil. na jàngalu kii kii heure bi dafa jot. waaw kon nañ ci après ab la basa ah, kon la basa léegi euh, ci léegi kon ñu jaar ak tuuti rek bala ñëw kii kon parce que euh, al aham mooy li ñu ay kii yu ndaw ndawaan la waaye voilà léegi daal ñu xam ne kon tey jàng nañ sukkoon ah, daar lay nekk ci gën a siiw da ngeen dana nekk daal su xaa xalil ak waa këram dana nekk xaa ci waa andalus dana nekk maanaam jarra ah ci waa andalus kon ah dana nekk xaa maanaam ci ha eh, eh, eh, ci maanaam nuxaat yi dana nekk dana nekk dana nekk maanaam bañ a def dara boobu Irak ak ak ak yu demee ko noonu bu paree ñëw nañ ci ñëw nañ ci sadda sadda am na ñaari form siin ak forme daal forme daal nag mu am ay wax dégg ngeen forme daal moo am ay wax ci kaw lay nekk maskalon comme lañ ko xame woon dañ koy maas duñ ko maas duñ mooy wax ju njëkk ji loolu moo gën a lëng danañ ko maas am na ñu wax loolu am nañu danañ ko maas fu fekkee dafa ne ci mujjug baat bi waaye bu nekk ci digg ko sàdd rek bàyyi ko noonu ginnaaw bi jàng nañ matt matt mooy xëcc boo xam waaw moo koy waral wala yaa wala alif te sa topp ci wala saakin wu ñu idxaam wala saakin boo xamante ne bi maanaam maanaam dañ koo feeñal yaakaar naa loolu lañ loolu lañ jàll salaamaaleykum waaw mim gu ndaw masalan ah man xaw ma daanaka forme bii la boo xoolee mooy li nga wax rek li ngeen di wax daanaka mooy mim bu ndaw daanaka boo xamee sëgg doo ko xàmmee màdd kii dal lay mel ni tur lañ jël rek def ko forme bi hmm, da ngeen kon salaamaaleykum والقلم salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu